asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ah, mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu di encore ndokkeel sénégalais yépp waaye tey dama am ñëw fii nga xamante ne sama kër la parce que su ma nee sama kër la parce que man benn ci wàll ci man fii la sosoo donc su ma ñëwee fii si Thiès. muy benn dëkk ñaari gaar gëm naa ni duma gaare ndax fii laa déparé waaw rawatina nag ma ñëw fii si këru sama kilifa parce que gëm naa ni njëgën njëgën yëpp képp ku sokkee ko fii nga xamante ne mooy Thiès gëm naa ni xam nga ni am nañ fi wàll bu rëy waaye am nañ fi cër bu rëy rawatina tey ma ñëw fii nga xamante ne. mooy këru sama frère suñu responsable Birame Souleye donc tey jii gëm naa ni am na ñett raison lu tax ma war a ñëw fii dëkkuwaay mbokkuwaay ak liggéeyukaay su ma nee dëkkuwaay mooy fi ma sosoo mbokk ngi mooy suñu kilifa moo fi dëkk muy njëgeen waaye it liggéeyukaay mooy parti bii nga xamante ne moom la ñu bokk muy l'espoir du Sénégal qui est le PASTEF mais aussi mooy la graine bi nga xamante ne elle est devenue un arbre aujourd'hui fruitier et gëm naa ni fii ak diir bu ndaw incha allah la récolte sera et se fera incha allah avec nous mais aussi avec vous lu tax ma ne avec nous nous les Sénégalais mais avec vous vous les porteurs d'espoir vous les porteurs de projet vous yéen ñi nga xamante ne yéen la Sénégal yaakaar jiital ci le président Ousmane Sonko moom nga xamante ne moom mooy le leader et celui qui incarne le projet aujourd'hui bi tax tey Sénégal ñëpp amaat espoir ci kaw loolu ci espoir boobu moo taxoon tey ñu dox ay tànk jëm ci si fii nga xamante ne fii la ñu déparé muy Thiès rawatina une mairie qui a été gagnée avec beaucoup beaucoup de difficultés mais avec ta présence avec ton travail sa abnégation sa détermination moo tax tey lu waaye doon jaay lamb na naam on n'a pas la ville mais est-ce qu'on a besoin de la ville on aspire à devenir ñii nga xamante ne ñoom ñooy defaraat Sénégal suba est-ce que dañuy dem di xëccu loo xamante ne am nañ ko ba pare parce que tey ñëpp xam nañ ni Birame Souleye am nga wàll bu am solo ci liggéey bi tey fi mu toll muy liggéeyu Pastef kenn ku ci nekk nag am na lu la yàlla defal muy sa force am na loo tax loo xamante ni danga koy mottalikoo ci ñii nga xamante ne ñoom ngay àndal di liggéeyal aujourd'hui quand tu parles de Birame Souleye lan ngay wax liggéeykat loolu du xas loolu sag la loolu du xas loolu ndam la loolu du xas waaye loolu sas la xaw ma ndax dégg nga ma du xas waaye sas la liggéey bi nga xamante ne moo tax ñu xam la na nga ci sax te xam ni moo tax ñun ndaw yi nga xamante ne dañ leen fekk si yéen suñuy mag ci daara ji nga xamante ne mooy Pastef ngal la yéen sax leen ci ndax dañuy dañ leen di xool bëtu royukaay ngal la yéen bu leen ci jóg ndax dangeen nekk suñu espoir ngal la yéen doxal leen ndax dañu yaakaar ci yéen. ngir bu ëllëgee njëriñ bi bu mu des ci seeni loxo rek waaye nañ ko sedd ñii nga xamante ne mooy ñi leen yaakaar mooy ñun waaye mooy seen njaboot mooy Sénégal donc aujourd'hui le Pastef il faut que les gens du Sénégal plus ou moins pour parler un langage plus correct il faut que les citoyens pas les gens mais les citoyens sénégalais comprennent que aujourd'hui le PASTEF ne s'arrête pas juste avec le président Ousmane Sonko ni avec biram Souleye ni avec Cheikh Bara Ndiaye ni avec qui que ce soit le PASTEF était et et deviendra avec ou sans li tax ñu topp le président Ousmane Sonko du jëmm ji ndax bu doon jëmm ji rek dañ ko fay bàyyi ndax jëmm dong biir la dong ci àdduna dund lu gàtt la. waaye lu bari la ci nit waaye projet bi nga xamante ne moom la ñu ñëpp ñu am confiance ci moom bàyyi fi ñëpp tànn ko ne ko jiitul yaakaar boobu ñu am ci moom ci njubalam mooy parcours am ci waxam ak doxinam muy discours am waaye yit ci génie wam ndax man gëm naa ni le vrai génie politique aujourd'hui c'est le président Ousmane Sonko. parce que boo fa nekkee ñu ne yaa nga fa boo fa nekkul ñu ne yaa nga fa ndax tey xam nañu bañ jàppee président Ousmane Sonko ba léegi ci ay caaxaan dëkk bi doxul ndax dëkk bi dañ koo jàppit ci ay caaxaan bu dëkk bi doon doxee ay tànk tey tànk ay loxo lay doxee donc xam nañ ni am na cër bu rëy ci réew mi waaye jeunes yi moom indiwaat nañu tey ci lan ci lii nga xamante ne mooy fii ñu jëm muy élection présidentielle yi. ñëpp foogoon nañ ni Pastef sëngéem na Pastef suulu na parce que jàpp nañ le président Ousmane Sonko boo ko téyee rek le projet s'arrête cher adversaire vous vous trompez lourdement nous avons Birame Souleye nous avons El Malick nous avons Abbas Fall nous avons Bassirou Diomaye Faye nous avons Guy Marius Sagna et nous avons et nous avons mais derrière tout ça c'est le président Ousmane Sonko qui est Birame Souleye c'est le président Ousmane Sonko qui est El Malick c'est le président Ousmane Sonko qui est Abbas Fall c'est le président Ousmane Sonko qui est Guy Marius Sagna c'est le président Ousmane Sonko qui est et restera toujours notre plan A notre plan B j'ai pas oublié Diomaye parce que c'est le président Ousmane Sonko le vrai génie politique de ce te tey wane na ko fii ñu jëm ni moo ñu fi indi liggéey bi ngay def bi ma wax ci début bi moo indi tey ñu dox suñuy tànk naam tardé nañu ndax Sénégal xat na xat goo xamante ne xëy na boo bëggee jóg ne damay dem béréb jafe na tey nga déplacé wu facilement parce que oto yi bari nañu tali yi xat nañu. te defe naa ni bés bu ñu yàlla dimbalee ci kattanam ak mbaaxam ak dem moom mi nga xamante ne moom mooy borom kun fayakun bu le projet PASTEF ñëwee taxaw dinañ xam ni Sénégal changé na te le changement bii feeñ ci tali yi moo nar a feeñ ci xol yi et aujourd'hui je pense que ci tali boobu lañu doxee ñëw soutenir la en tant que frère mais jàppale la mais sagal la sargal la ci jéego yi nga xamante ne yaa ngi koy dox pour doxal li nga xamante ne moom lañ la dénk ci loolu nga tabaxee un terrain de basket ma xam ko lool yàgg ci lool joobe ci lool jooy ci lu bari waaye ñaq it lu ci lu bari tey boo ko tabaxee. dafa am message bu rëy boo lancé le Sénégal xaw ma ndax xam nga ko mais dinaa la ko wax le sport il faut que les gens comprennent que c'est un facteur de développement et tu as montré aujourd'hui de par ton sérieux et ton travail qu'avec le sport on peut développer ce pays avec le sport on peut donner encore de l'espoir mën nañ joxaat espoir et tey fii Sénégal toll ndaw yi Sénégal parce que ñoom ñooy devenir suba Sénégal bi danga leen joxaat espoir ci sport parce que amatuñu espoir li tax ñuy def ay jéego pour jël gaal gi dem du parce que bëgguñu toog ci réew mi de mais dañu amatul espoir man duma leen mukk joxoñ baaraam su ma leen mënul dimbali duma leen joxoñ baaraam encouragé wu ma l'immigration clandestine déet il faut que ça soit clair je pense que le PASTEF est un parti discipliné s'il n'est pas le parti le plus discipliné de tous ces partis existants de ce pays la mais ku amul li la gënal jàpp ci li la sës te li fi sës mooy lan dem uti horizon divers parce que yaakaar bi nga am foofu moo tax mu jaral la nga jaay sa lépp ba fi sa lépp ba fi say wëjur ba fi say njaboot ba fi sa alal ba fi sa lépp ngir uti loo mën a suturloo parce que boo ko fi amoon doo dem donc aujourd'hui le sport croyez-moi peut être le levier de développement mais aussi li nga xamante ne dafay joxe espoir parce que ces jeunes qui vont pratiquer ce sport là ils vont dire le terrain que Birame Souleye nous avait m'a forgé aujourd'hui pour devenir ce champion qui représentera le Sénégal, mais aussi qui formera un homme qui deviendra pas un parasite de sa population, mais quelqu'un qui va servir à sa nation. Parce que le sport, yamul rek ci tàggat yaram mais dafay yar parce que daf lay jox ay jikko le sport dafay defar nit waaye le sport tamit képp kuy dund da ko soxla parce que dañ la ne un esprit sain dans un corps sain je ne vous félicite pas biram Souleye vous avez encore du travail je pense que yaa ngi ci te lii firnde la te yow ak say frères de partie yéen a ngi ci du ma la féliciter dama lay encourager ndax fas buy daw nga gis ko muy daw nga xam ni yoon bi sori na lool. bu taxawee da koy may ndox làbbali ko làbbali yu saf ngir mu gën a daw ndax li leen di xaar ci kanam moo gën a metti fuuf waaye doo leen si wéet ndax di ngeen am ay frères de parti di ngeen am ay frères sénégalais di ngeen am ay patriotes ay sympathisants yu leen di jàppale pour accomplir ce projet là ci loolu laay tëjee ndax bugguma guddal di woo sama mbokk sénégalais yëpp ñu yeewu xam ni tey la rupture est obligatoire cette rupture là elle inévitable force dëkk bi dina changer parce que dafa am lu judduwaat lu bees muy Pastef te boo amul pas-pas munoo am Pastef te fii ñu jëm Pastef bi dafa ñor xom mango bu xaay la ñu woon 2019 waaye tey mango bu ñor xomm lañ ñaaree am donc witti lekk mbaa wadd for lekk waaye lekk moom ala kulli xaal dafay am te lekk bi mooy rupture bi il faut ñu changer ce pays là pour ça étape bi njëkk su ma ko indee ci sama domaine mooy day fa am lu ñu wax pré-saison am saison am finale ñu ngi ci pré-saison pré-saison la ci parrainage bi kenn ku ci ne kuy citoyen ku gëm la projet de Pastef ku gëm ni Sénégal war na mën a changé war nañ ko mën a teg ci ay loxo yu set loxo yu sel ak ay nit yu gore yu am fulla yu am détermination waaye gëm Sénégal tey na leen ko jaral ngeen jug takk seen dënn am seen fulla ak seen fayda seen carte yéen ko moom ñi ko amagul jóg leen ngeen jëli ko bu ubbee ngeen xam ni ki ngeen di parrainer suba di ngeen am part de responsabilité si lii nga xamante ne mooy la devenir du Sénégal et ça commence dès maintenant le candidat bi ngeen di parrainer jàpp leen ni kuñ ci mën a taxaw c'est le président Ousmane Sonko kum ci mënti nekk si ñii nga xamante ne le parti déjà choisi ce sera le président Ousmane Sonko qui sera devant vous. Et élection présidentielle, c'est une ben c'est un homme qui va à la rencontre et qui fera une histoire avec son peuple. Donc nit la ak askanam. Askan bobu tay na ngeen jog parrainer le Pastef. Parrainer len les candidats du PASTEF. Parce que ce pays changera avec le PASTEF. Parce qu'on a le meilleur programme. Et je le dis bien, on a le meilleur programme qui a été conçu avec des hommes intègres, des intellectuels, mais aussi des hommes de valeur et des hommes de terrain. Li ñu leen di wax programme bi ñu bi ñu leen di nar a proposé ce sont des Sénégalais yoo xamante ne ñoom ñoo ko liggéey demuñu jëndi ay programme si ay wala ay chinois c'est un programme boo xamante ne ay sénégalais ñoo ko defar te incha allah bés bu ñu leen ko yàkkalee di ngeen xam ne nous avons le meilleur programme nous avons le meilleur leader et nous avons le leader idéal qui est le président Ousmane Sonko que incha allah au soir du 25 2020 2024 le Sénégal changera avec le président Ousmane Sonko bu neexee yàlla.